salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal lu bees tàq dallu Dakar biir Click Dakar 221 ci biir Dakar maa ngi fii di leen wax ni yéen ñi nga xamante ni da ngeen yor ay produits yoo xam ne da ngeen koy jaay moo xam diw moo xam saabu moo xam dàll moo xam yére moo xam cadeau de Noël ñëw leen fii ci biir Click Dakar 221 ci kattanu yàlla ak mbaaxam Sénégal yépp di leen fés xam ni sa produit bi mi ngi fi dallu Dakar. Click Dakar 221 biir Ndakaaru